bu ëllëgee di nga fi jóge dëgg des fa bu konte ci yow ànd ak yow ci bàmbeel waaye comme ci yàlla la konte dëggay sax ba faw parce lu ne kilifa du lu mu gis dugg ca kilifa dafa am fu war a boo yëgee ni ki nga seqal du la tooñ du la tooñ ci ñi la gën a jege moom it bul ko tooñ te loo xamul bu ko àttee da fay wàññi personnalité kilifa wa li moy li nga xamni mo xel li moy li nga xamni mo am gis nga en 1949 xam nga Cheikh Al Hadj mali lu mu waxoon ci Serigne Babacar Sy dafa waxoon ni defuma ko sama khalifa Cheikh Al Hadj Malick mu ni mag ñee ko désigné neex na ma nag parce que sama xol moom laa ko yéene te bu mat ñi tànnoon keneen duma ci mën dara moo tax sëñ Babacar si daf ñu daan sànni defi di wax ni défi bi ma leen di lancé moo di seen maam Maodo bu ma jural woon man Babacar ma doon na ko mais en 1949 la tubaab yi si wax ni xalif général Serigne Cheikh ne d'accordu ci nañu dindi général ji parce que dafa am consonance euh, euh, coloniale ni nañu bayyi rek alxalifa ji Maodo désigné won mu nekk fi mu ni waye bu dee général la jël ñep parce que ku da ngay bëgg nekk un général contre ko waaw pour wan la ni eh, bari na lu tere nit nelaw te boo nu ko joxoon tey pour séddu nu ko rek ñu saaga la maam waaw kooku amul dara loo xam ni dinañu ko ci yokk kon nag sëriñ bi eh, am na loo xam ne boo ca bokkoon tey ñu rus kon ñuy sant malikul xaqul mubin moom mi la ci génne waaw ndax it adduna gént ak calcul du ko àtte mais lu tax Cheikh Al Hadj Malick xëy suba wax mag ñi ni bu ko kenn nettalee ci gént moom Maodo pourtant nit dana gént c'est naturel mais xam nga lu taxoon Maodo wax parce que mag ñi ñoo bëggoon tënk seen wilaaye ci gént kenn ku xëy rek ni gént naa nangam gis Jibril mu nga ànd ak Mikaayil nangam nangam Cheikh Al Hadj Malick dajale mag ñëpp ñu toog mu ni leen yéen a ngi nuy bëgg a rey ci gént yi mu ni leen tëgg gént bu waxoon dëgg dox ba bëccëg du bàyyi ba nit ñi nelaw mu di leen yéen yéen a ngi bëgg a rey nit ñi et pourtant sëriñam yonent bi yonent bi wax na ni ci mujj jamono sama xeet dinañu gàgganti ko ci gént ci gént la wax mais ki commencé ràbb géntam ca tàkkusaan waaw di nas di nocc ci fas yéene bu xëyee ni la ko tey te bu la koy wax di la xool ci biir bët di seet ndax gëm nga li mu wax wala déet mais boobu la moo doo wax ne kili mag bi ci tënku parce que ñàkk fayda la ah, ñàkk fayda la gis nga nañu yee néew yi ci bàmbeel yépp ñu dem ci awoon nanu jël malaikatu rahman yi ci kow yépp ñu dem ci gis nga xam nga ku nu yegg yàlla jeex bu weesoo nag bàyyi buy yiw bi xamul kombin sëriñ Babacar Sy xamul kombin sëriñ Babacar Sy xamul corruption sentimentale sëriñ Babacar Sy xamul bassesse sëriñ Babacar si xamul meskineur yi waaw te ku ne nga ni ko waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mais est ce que xam nañu xablullahi mooy la mais xablullahi c'est une corde raide tëye ci te glissé wuloo fokk gaa ya ngay sol sa jikko xool ràbb ko ci yiw boo ca tëyee doo barastiku waye xablullahi jamian rek nga dem tëye ci glisser ba duggaat ci kàmb ga te war na am luñu bàyyi xel moy Serigne Cheikh ni daf ñuy wax toujours ni bu len wax njabot yi len yaakaar cieur bu nekul ci yéen ndax bis buñ ko découvrir déception ba ñuy am ni yoru len cieur ba ndeke dagen len ko doon ndax pour ñu gëm len mais gëm nu pour lan gëm nu pour lan waaw kër goo xam ni boo fa dikkee ka nga ni moom nga yaakaar muy moom mi toog lan na ko teree nelaw nekk taalibe sëriñ Babacar Sy sëriñ Babacar Sy nga gis ko lan na ko teree nelaw nekk taalibe Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj Malick nga gis ko lan na ko teree nelaw mooy nekk taalibe Cheikh El Hadj Omar waxuma njabootu Cheikh El Hadj Omar nekk taalibe Cheikh El Hadj Omar laa wax Cheikh El Hadj Omar nga dem ca moom la yitteel mooy mu nekk taalibe Sayid Cheikh Ahmed Tijani Sayid Cheikh Ahmed Tijani la yitteel mooy mu nekk taalibe yonent bi yonent bi la yitteel mooy mu nekk taalibe yàlla mais fooy wootee fooy wootee parce que amul place amul place lu amul place nag du ñu ko ko jox te itam ña nga am ñëpp nga ni leen ci kaw asamaan si ngay fana ñu jóg guddi ñëw di seet si ndax yaa ngi ci kaw asamaan si fekk ñu lay lugat ñu lay lugat pour génn la ci trou mais kooku itam kenn xamul foo koy teg ah, kenn xamul foo koy teg ba tax na gis nga waxuma nit ñi mais picc yi sax seen xel ñor na waxuma nit ñi gis nga bu njëkk tool boo am mu am meññeent nga bañ picc lekk ko xam nga looy tiitale picc yi ku ñeental xam nga luy ku ñeental mooy épouvantail boo jëlee épouvantail samp ko ca biir tool ba picc mu ko seen daw xam nga lu xewle épouvantail boo samp sa biir tool bu picc xàccee sa tur sa tool épouvantail ba lay takk pour lekk ko xam nga loolu mooy lan seetlu naa ba gis ni kii fiñ ko samp ci suba ba jant so mënul fee jóg kon mënul dàq kenn ba jàpp ko picc yi xam nañ ko bu ñu lekk sàccee fruit léegi dootuñu ko lekk ci branche yi parce que branche yi amul équilibre dafay dem di dellu si waaye ci kaw ci kaw euh, kuññental bi ci lañ koy dévorer pour wan leen bi yow doomu aada aadama mënoo parce que li nga essayé fi nga ko samp mënoo fi bouger kon nag santal yàlla mi la bind may la meññent tama xaj ci nga bëgg a jël sama bakkan sant ko bàyyi ma ma lekk ci benn mango noonu rek la demee bu ko defee sëriñ bi yëf yàngoo et li nu wax xaw na ëpp mais suñu àq la àq na ku ne yaa ko moom li nu wax it gëm nañu ko li nu wax gëm nañu ko doy na bi ci desit ànd bu ne xam nañu la ko lal wala fi dañu wax ni ñaari baqaar yu fanaan ci nekk cooway bari mais ngëm mentu du am parce que ku ne defe nga ni boo nelawee sa morom rendi la boobu rek la sëriñ bi kon ñu ngi lay ñaanal yiw yàlla sàmm la assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala السلام عليكم تبارك الله تبارك الله ñi moom yëf yi wax nañu man nag wéttal laa rek tabarkalla dafa mel ni li ñuy tuddee xam-xamu mam المادة القطعية ولا اللي يبتدي أسلوب المقاطعة بقد في كي وخ كي تكلوي سنغم ndax yàlla deme noonu di nga wax ak ay nit ñu gën laa dégg la ngay wax loolu dafay am يبقى حامل فقه إلى من هو أفقه منها ولا رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نبدنا وعرق para ora. Mo taxone mak ñi bari lu ñuy الحاج مالك Al-Hajj Malik رضي الله تعالى عنه دم دم شيري القرآن تندر بأنه قور نفو بكا دف مرام لول دف كو وجو لول talibi toge ci suuf sax moom mu jël chaise dend ak Maodo bañ na ko ba Malik rek la ko daan wooye Cheikh El Hadj Malik di firi alxuraan ba am fu mu agsi mu ni ko moo doon teg mu ni ko li nga wax bokkul ak li ci téere bi mu ni ko kon wax ma li nekk ci téere bi mu wax ko li nekk ci téere bi ba ca kanam mu ni ko xanaa tafsirul jalaale ni nga ame mu ni ko waa mu ni ko borom dafa juum ni ko borom dafa juum mbooloo mi kenn amu fi saawi sawi ala aljalalay ñu dal di daw dugg daw dugg génn saawi mu ni nañ ko jàng jàng ko fekk mu jumlo borom tafsirul jalalayn motax serigne sëriñ dan na wax ni nettali naa ko ba tay nee na balaa sa xol ak sa xel dal ci sa daara na fekk téere bu ñuy soow boo ko jàngee xeeb borom waxin la ba tey ñu ngi ci unicité de Dieu waaye comme uslubul muqataa dañuy dajale per yi rekk jox leen yéenay xam per bu ne ba mu wara a dendal waaw naskatu caq dina ko xam waaw léeg nga gis ku sol caq nga xam ni naskatu caq piir a ko ko jox ndax per bu ne ba mu war a àndal lay àndal dafay sama métier koy sama métier nit nag boo ko xasee ci métier yaa ko tooñ waaw xam ne per xam meloom ak nu ngi koy nase dafay sama métier kon ku ma ci xas yaa ma tooñ te itam doomu soxna ñett rek la dënnam yóoram kontaan bànkam sa dënn na fees ak leer sa yóor na fees ak xam-xam sa compte na fees ak dépense boo ko deful tooñ nga yàlla élection yi ci am boroom xam-xam bu ñoo wax Kéba Mbaye mu joxe démission benn kilifa ñëw di dal ci kawam bu demee beneen kilifa ñëw ma ne ko daje nga ak diw mu ni ma waaw ma ni ko mere na keebaa lool mu ni ma mere na ku bare ma ni ko nee xëy na ay atam mu ni ma dëgg amul at ma ni ko yàlla it amul at kulle yawmin huwa fi shan yàlla du màggat moo ko tax a ba siècle yi kulla fi shan yàlla yàlla du programme programme ko xamagul foo jëm yaa koy am moo tax yàlla doo am programme te lu ko neex rek la xam waaw lu ko neex rek la xam ndax sañ moo tax jaru caaro yi lu ne roy ko ca gannaaw sañ waaw boo ko royee ci sañ muy sañ ji waaw te sañ ji mooy rëbb bi yées ci rëbb yi xale ba dafa war fasam muy fas wu rafet mu romb mag mu baax mu ni ko sa fas wi naka la sudd mu ni lu ko neex def mu ni ko ndax mu wutalal la ko sant mu ni ko waaw mu ni ko lu ko naqadi dal ko mu mel ni kon nii ko ñaari sang yi waxe te ku ci ne ci ñoom waxe ko ci wóolu lu mat a bàyyi xel la ndax suñu dee gëm seen wax yàlla ak xam Nimas ni mas na dégg ma wax fii ci ni yonent bi pettaawa ko feeñal nekk du pettal rekk xam-xam ba ko yenu la wante cadre yi ñaar cadre bu nga xam ni ilmul xayb moo cay àtte كادر بوغا خامني ظن الغيب وجيات واني يننت بي نقطب بي ني ولي بي لي نيو لا اتل wane gisaanekat bi ni tanikat bi seetkat bi lu ñu la àtteel ci cadre wanul xay ba la ñu la ko àtteel su ko defee nag ñun ni ndax gisaane dagan na manit dafa am yoo xam ni kenn du ko àttee dagan na walla daganul boo ko defee rek gaañ nit ñi ndax ki mënula toog te gisaanewul wutul ku ko gisaaneel bu ko deful dof léegi bu ko jéema àtte ci dagan ak ñàkk a bàyyi ko rekk mu dem wuti ku ko gisaanee loolu la imaam ay wax maanaam nit ku dëgër ak nit ku dëgërul moo fi ne am na koo xam ni bu ñu ko téyewul rekk ñàkk ko ba moo tax am na ko xam ni bu xëyee te gisaan na luwul rekk ba ci gëm yëpp yàqu waaw kooku bu ko àtte ndax dagan na walla daganul bàyyi ko rekk mu dem ñu tanil ko moo gën wante bu dee ilmul xayb nag yonent yee ko moom ak aqtaab yi ak awliyaaw yi ndax dara du ca jaas bële léeg-léeg mu jaas waaye rekk am na ñu mu tollool am na mu tollool pour wax la ni yaatal sa dënn farata la ياتل سدن فراتل ياتل سدن فراتل فوالله فوالله ما بقى البلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق woykat ba nee na waatal naa la ci yàlla réew tuutewu ko ba xat waaye ne jikko góor ñi nag mooy xat شركاء متشاكسون ورجل سلاما لرجل هل يستويان مثلا ف... يلا نانا ما ديف نياري غور غور غو خامني بوي واخ ak mom نلا وور ما ngay waxal nee doo am benn fitna ak góor goo xam ne booy wax ak moom yaa ngi wax ak junni njuuma waaw nee na yaa xam nag boo cay tànn yont yàlla yunus dafa am mbokkam président Abdou Diouf wax na ma sama mujj giseek moom mu ni ma danga may fàttali xissa yont yàlla Yunus mu ni ma baat kenn du ko able Allah mu ni ma baat kenn du ko able waaw ndax kañu ko jox bokk la kamu ko abal bopp Larry. ni yent yunus ba mu bëggee able baatam mu ni ca la ko jën wa wan yóbbu ko ba nii na mu gëq ko fa pour ko ni ko bokkatoo وسلم قصة آدم من يكون آدم من يكون دفعوني آدم بنلا منيك نيون يوننتي دي يالا xamal nañu mbiru téeméeri junne yi aadama روح لدي نبارك دني جاولي مبدا الخلق اك مبدا البشر والله لا تتوب بنا يلنت بنينا دندو أدنى بنكو بندك لكي nee benn bëccëg la waaye nee na nit kon ba takkusaan passé timis di dugg lañu ko bind waaw kon lu mu xam ci bëccëg bi jabu yam ci kudd ñu raf la ci mbax ko ben bën bi yonent bi jaar wuy ji yalla ci la borom sagar yi ñak xel di jaar pour wuy ji yalla Ben-ben bi champion olympique bi jaar wuy ju borom ci le liir bi di jaar pour wuy ji borom mu mel ni kon nak ko yabu yam ci kudd ñu rox la ci bopp waaw ca jamono yële ca gannaaw tubaab yi dañ doon gas ba génne benn haykal werante ya bare lool ñii ne hëykalu yonent yàlla nuux la ñii ne hëykalu keneen la waaye kom taqul yàpp xanaa yàqu kese la xamuñu hëykalu kan la lu jar ci moom yenn yi amul amul doo fekk nag li nu fi fekk rek la fi fekk wala sha allahu judul jeex ah wala insha allahu judul jeex watax ñu ni al insan muxayyar la musayyar

dafa néew doole te it xam-xam dafa bari ruq